sëriñ bi dana sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey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 tey ñaan suñuy kàddu suñu borom subhaanahu tabaaraka wa taala def ko mu fekk leen ci jàmm di siyaare bu baax ñi nga xamee ne ñooy topp jotaay yi jamono yu ne mu mel ni suñu jataay bii ñu mujjee ñu ngi woon ci téere bi ñuy wax tazawwadu sixaar mu mel ni jëloon nañ ci suñu xaaj bu njëkk kon ñu fas yéene jël suñu xaajum ñaareel incha allahu rabbi bismillah yaquulu dana wax man ka nga xam ne laysa yazaalu déet muy deñ yaxmadu di sant maalikahu boromam ba alxabdu kay jaamu yàlla ba alxadiimu kay aji liggéeyal yonente bi ahmadu turam mooy di ahmad kon dafa def lu ñuy wax ak xamle gu gàtt ci boppam mu wax ne moom mi wax mooy ki nga xam ni ab jaamub yàlla la waaye jaamub yàlla boo xam te ni du deñ mukk ci sant yàlla boroomam te moom kat mooy ki nga xam ni mooy liggéeyal yonente yi te turam moo di ahmad alhamdu mboolem xeetu cant yi lillaahi aji sax la ñeel yàlla allazi yàlla ma nga xam ne ahsana rafetal na lii ñeel ma ixsaana man rafetal goo xam te nii laysa yazaalu du mas di dañ naa di rafetal mu ne mi ngi sant yàlla mu ne mbooleem xeetu cent yi ñeel na yàlla yàlla mi nga xamee ne ci jamono yépp du deñ mukk ci moom di ko defal lu rafet defal lu rafet googi daal yàlla di ko defal am na ak tàmbali waaye amut ak yam fu mu toll rek suñu borom di ko defal lu rafet ahmaduhu sant naa ko wajaada tabe na bi tawxiidi ci tawxiid wa axawayhi ak ñaari mbokkam ya sunnatil waxiidi ya di sunnaay azwéet mu nekkat maa ngi sant yàlla ci baaxe gim ñu baaxee xam-xamu tawxiid ak ñaari mbokkam ya muy fiq ak tasawuf mu ne kon maa ngi sant yàlla xam-xamu tawee nag mooy xam-xam bi xamale ni ñuy wéetalee yàlla suñu borom subhanahu tabaraka bu ne ñaari mbokkam mi nag mooy fiq ak tasawuf comme niñ ko waxoon mooy imaan ak islaam ak ihsaan summa salaatu topp may julli wasalaam ak sëlmal wala summa salaatu toppi dolli teral wasalaamu ak dolli wóolu salmada ba faw ala xalilihi ca xaritam ba alxabibi kadib soppeem ahmada mooy ahmad wa alihi ak i ñoñom maa sahaabi ànd ak sahaaba ya al muminina ña way gëm al muslimina ña di jullit al i ña di way tedd al muxsinina way rafetal mu ne maa ngi ñaan suñu borom mu dolli ak teddaanga ak ak ba faw ci xaritam bi ak waa këram ya mooy képp koo xam te ni mbokk mbokkam yi nga xam ne dañoo nekkoon ak moom ak waa këram yi nga xam ne dañoo nekkoon ak moom te gëm ko topp ko ak saxaaba yi mooy képp ku fekke woon jamono yonente bi te nangul ko saxaaba yooyu rek la wax ne ñoom ñi nga xam te ne ñooy aji gëm yi ñooy ay jullit ñooy woy tedd yi ñooy woy rafetal yi mooy ñi nga xamee ne ñoo jëfe ñetti xam-xam yooyu mu doon wax mooy iman ak islaam ak ixsaan mu ne haza yëgal ne waza téere bii nazamtuhu way naa ko mu xaddama muy lu ñu jiital urjuusatan di aw rajas naafixatan wuy jariñe mu karrama wuñ teral mu ne kat yëgal ne kon way wii may woy mooy téere bi way naa ko muy lu jiitu muy ak ak jiital ci képp ko xam da ngaa bëgg a tàmbali di sàkku xam-xam nga mën koo tàmbalee mu ne waaye maa ngi ko woy ci baxdu rajas ci daaju rajas mooy comme ni mu tëgg tëggee téere bi ci woy waaye nag mu nekk wuy woy yu jariñe waaye woy yoo xam ne suñu boom da ko koo teral lool lool sax dina ci ñëw ci mujjantalu téere ba sa maytuhu tuddee naa ko kon te sa waddu sixaari yóbbulu ndaw ñi ilaa jinaanillaahi jëme leen ci ajjana yàlla ja sil anhaari yàlla mi borom dexe mu ne kon nag téere bi maa ngi tuddee te sa waddu sixaar muy yóbbulu ndaw ñi fa leen di yóbbu ci àjjana yàlla ji nga xam te ni mooy boroom dex mooy dexe meew yi ñuy wax ak ak dex yi soow yaag dex sàngara yaag yu mel noonu mu ne yàlla moom mu képp ku jàng téere bi yàlla na la téere bi wommet yóbbu la ci àjjana joojee mu ne wa asalu ak may ñaan allahu yàlla rabbi sama borom alxubula ak nangu alxabula ak nangu wal am na ak kóolute wa safaa ak selal wa tabjiila ak màggal ne maa ñaan suñu borom kat mu defal ma ak nangu ak ak wóolute ak ak sellal ak ak màggal di ko màggal fu mu toll moom yàlla suñu borom subhaanahu wa taala ak di ko mu ne wa kaw na haazan nas mi nekkuk wii way xaa idaa di wamet kulla laman képp koo xamee ne talaa jàng na ko ila sabilihi jëm jëme ko ci yoon wa al aqwami wa gën a jub ne maa ngi ñaan ka suñu bam def way wii muy way woo xam képp ku ko jàng dana la wommet la ci yoon wa gën a jub yoon ya gaa yi ragaloon yàlla jaaral mu jaare la muy yoon siraatal mustaqiim ne maa ngi ñaan yàlla wa kawnu ak nekkam sahaadatu sibyaani di texeek ndaw ñi was siibi ak borom muy bijaaw yi mooy ñi nga xam ne ñoo dem ba bijaaw wa subbaani ak waxambaane yi wa niswaani ak jigéen ñi mu ne maa ngi ñaani téere bi mu nekk texeeg ndaw ñi ak ñi nga xam ne dem ba toll ci bijaaw ak ñi nga xamee ne ay waxambaane lañ mooy ay mag lañ ak ñi nga xamee ne ay jigéen lañ mu ne maa ngi ñaan téere bi nekk seen texe buñ ko jàng rek te jëfe ko téere bi nekk sa texe tey ak ëllëg reza yëgal ne awaanu lin siraax yi sama njëlbeenu soppiku lil maraam jëm ci sàkku téef sama sàkku téef waju rabbi sama jëmmi boroom wala di mooy sama xel mem téef bi lan siraam ci lu dul dog mu ne nag na nga xam ne li ma doon wax lépp ci tàmbali ba léegi nag na nga xam ne maa ngi jublu nag ci mbir mi nga xam te ni mooy sama xemeem moom laa bëgg moom laa bëgg a tàmbalee mu ne maa ngi jëm ci mbir moom kon nag dafay xamal ne kon lim doon wax lépp ab tàmbali la léegi nag mi ngi jëm ci li ko tax a jóg ci téere bi maam bunt bi njëkk ci téere bi mu ne nag waaye na xam ne nag sama jëmmi suñ jëmmi suñu borom sama borom ci boppam lépp lu ma bëgg ak lu mu mën di doon rek na xam ne suñu borom laa ci jiital mooy sumu lépp moom rek laa bëgg bëgg gi ma ko bëgg nag amut ab tàmbali am na ak tàmbali waaye amut ak yam amut fenn fu mu yam bi lan saa kon nag amut fu mu yem kon loolu ni kon loolu mooy suñu bunt bu njëkk insha allah rabbi bunt bii di ñëwaat mu def bunt bi njëkk ci ci lii bi soññu ndaw ñeeg xeet yu mel noonu muy bunt bu am solo kon ñu ngi ñaan suñu boom subhaanahu wa taala defal ñu dé dégg ak topp te ñaan suñu boom faj aajo yi defal ñu jàmm suñu réew ak réew jullit ñëpp ak réew yépp di wax na lépp lu fi jub rek ci yàlla la lu dëng rek nañ xam ne sunu jëm yu xeeb yii la ñu ngi koy jéggalu in uridu ilal islaaha masataxtu ma tawfiqa illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kon ñu ngi leen jox dig daje ci beneen jotaay incha allah sëriñ bi dana sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéenee nañ ko fas yéenee liggéey liggéeyal